safaru ban sasin junnatun safaru ban sasin junnatun safaru ban sasin junnatun ginnaaw bu leeralee imaam alxasaali ni mu waxee ne yonente yi mosuñoo mucc ci nattu yi leen yàlla di teg moo xam lor yuñ leen di teg xeeti génn leen seen dëkk ak di leen rambaajeeg buur yi ak di leen seereel sax ne ñoom ñii kat dañoo génn diine ak xeeti tumurankeel gu nekk nee na aju ci yonent yeeg ñu ñu topp seen ginnaaw ñu baax ñëpp mosuñoo mucc ci xeeti nattu ak balaa yooyu mu wax ne balaa daal yàlla da koo wakkiil da koo féetale yonent yi waaye nag ku topp ci seen ginnaaw ak ka ca toppaat mooy ci daraja ndax bu yonent yi jàllee ña nga xam ne ñoo toppaat ñoom ci ay daraja te mooy wal awliyaullahi taala yi ak ñi nga xam ne ñëpp rek am nañ ay daraja fa suñu borom tabaraka wa taala lu sa daraja gën a rëy sam nattu di gën a rëy loolu ni ko imaamu Tirmisi yi nettalee Sëriñ Basiiru ba mu noppee dafa wax ne nag na ñoo wax ne day sëriñ Touba amul benn xeetu natt bu yàllay nattu ab jaam lu dul ne teg na ko lu dul daal mos ñoo gis moom kuy tuumaal sëriñ bi genn càggante ko aju ci diine nee na li may jaxasoog jaxasoog jaxasoog nit ñi daal mosuma dégg kenn koo xam ne moom mi ngi tuumaal Serigne bi ci aju ci diine rawatina di ko ci tuumaal lu aju ci xeeb wala woyefal benn yoon diine waaye lu dul loolu ci xeetu natt moom Serigne Bassirou ne na nga jàpp ne Serigne bi jànkonte ak moom ànd ak li ko yàlla tegoon ci nattu yi ñu xam yépp ci zahir wéeradig yaram sëriñ Basiir nee dafa sëriñ Basiir nee na Seexul Xadiim dafa taqoo woon ak wéeradig yaram ku néewoon ak wér la ci yaramam nee na njàpp mii rek nga xam danaan am lor lu baree baree bare ci mën laal am ndox ngir jëfandikoo ko jàpp waaye teewu danaan jànkoonteeg bakkanam tuumaal seytaane ci jàpp ne lii lépp ay ay pexeem la ba tax ndox moomee doonoon lor ci moom day mujj nekk saafaraam ñu ngi fàttali ko nam ko nettalee ci Minanul Baaqil Xadiim loxoom bu doon metti lool ba àgg naan ko li ma yàlla digal ci yow faaw danaa ko def di raxas loxo ba dëtt jay sotti ko nga xam ne loola moom lay mujj di def di ko def ba day mujj loola mooy nekk saafara ci moom ak donte amoon na ngant ci loolee kon loolu la wanee ne xeeti wér gi yaram yi ko daan dal yu bari la yu bari woon la lool néewoon lool moom Seexul Xadiim ak wér waaye teewut musta faat wala mu woyefal wala mu yeexe benn yoon waxtu suñu borom tabaaraka wa taala wala sax waxtu jot mu tiimal ko waaye mu wax ne it wax ak sant yàlla ndax ñaar yooyu ñuy ànd te ku ne xam ne màggal gi ak cant la ndax yàlla da koo tegum nattu mu war a génn ay mbokkam ay njabootam génn ab dëkkam dem jaxasoog ay noonu yoo xam ne lépp luñ xam ci xeetal danañ ko teg waaye mu ne bis bi ma yàlla tegee nattu bi ci laa koy sant ba tax màggal gi ku ne xam na ne demuk sëriñ bi lañ ciy fàttaliku ngir di ko ci sant la yàlla ginnaaw bu ko santee moom te woote ñu sant la ko ci yàlla sëriñ Basiru nag cant ak mu dañuy ñaari mbir yoo xam ne mënuñoo teqali koo lu ci waaye jàpp rek mu indi la la des kon bu la yàlla dee teg ay nattu nga di ko muñ bu yàgg ak cant la indil waaye bu la yàlla jox ay xéewal nga di ko sant bu yàgg ak muñ la indil ndax ñoom ñaar dañuy ñaari mbir yoo xam ne mënuñoo teqalikoo sëriñ Basiir nee na nag sunu borom tabaaraka mu tege woon sëriñ bi ay natt yàlla joxoon na ko itam xeeti muñ yi toll noonee ndax newoon naa muñ ay xeet ay daraja la muñu maandu yi way maandu yi muñu ñi sukkandiku ci yàlla ba ci muñu ñi nga xam ne it ñooy ñi nga xam ne borom daraja yi gën a kawe ci muñ ñetti xeeti muñ yépp sëriñ Basiir nee na Cheikhul Xadim daf leen a dajale woon ndax li tax mu ne daj amoon na muñu way maandu yi mooy moom da luñ ko mas a def du fay mukk day bàyyeeg boppam yàlla waaye musuñ koo def dara rabam jéem koo fay moom Seexul Xadim te loolu bokk na ca lam waxoon ne walastu axsha wala arju siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yunjini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi walastu radiya gayri al ilmi wa diini nga xam ne xasida googu ku ne xam na ne jamono jam koy taalif jamono ju diis la woon te tar ak xéewal yoo xam daan nañ ko xëj jëne ko ca waaye mu wax ne man daal yàlla laa doyloo sukkandikoo ci moom kon amul lenn loo xam naa ko jàmba jëm ci keneen wax na it nag su ma amee njàqare wala ma am aajo ci yàlla rek lay lay lay jubali waaye amul benn jàmboo boo xam danaa ko jàmbat waaye ñàkk gi mu doon ñàkk fayantoo kenn ak muñ gu réy gi newoon ci moom moo tax sëriñ Basiir di nettali ne am na bis kenn ci tubaab yi dikkal ko ànd ak tiitaange joo xam ne bëggoon na koo tiital ndax mi ngi yor benn ngànnaay ñëw ba tiim sëriñ bi di wax ak moom naan ko yow day na nga xam ne lépp lu ma tubaab bi digal ci yow danaa ko def sëriñ bi faalewu ko ba mu waxee wax a wax ba euh, coow li lëjal sëriñ bi sëriñ bi siggi jàkkaarloog moom xool ko na ko man it day na ngeen xam ne lépp lu ma sama borom digal ci yéen danaa ko muñ danaa ko def lépp lu ma sama borom digal ci yéen danaa ko def nee na bi ko sëriñ bi tontoo loolu tubaab bi am kersa waaye nag teewul mu jéem a góorgóorlu ànd ak sagoom ba laajaat sëriñ bi ne ko yow àndalu la sa sa borom digal ci ñun ndax mi ngi doon séentu xëy na sëñ bi wax leneen mu ne ko ana loola sa borom digal ci ñun sëriñ bi ne ko sama borom damaa digal lépp lu ngeen ma teg danaa ko muñ lépp lu ngeen ma teg muñ ko daal mooy li ma yàlla digal tubaab ba ne ko ah loolu kay ñun ñëpp la ko yàlla digal sëriñ bi ne ko waaye bu ko yàlla digalee ñëpp it menn man maay ko def kon loolu rek doy na sëkk ñu xam ne sëriñ bi ci xeetu muñ àggoon na ci ci ab dayo ndax ba ko tubaab bi waxee lam ko waxit ak ngànnaay lam yor ak tiital gam ko tiital ak yëpp teewul lam ko tont rek mooy man daal sama borom li ma digal ci yéen mooy lépp lu ma teg danaa ko muñ waaye sëriñ Basiir ne sëriñ biir it ko amee woon muñuk ñu sukkandiku ci yàlla lañ te mooy muñ ay lor dellu ci yàlla ci lépp mépp mbir mën a am ndax nee na amul benn xeetu lor bu bu xel mën a xalaat moom sëriñ Basiiru nee na amul benn xeetu lor bu xel di xalaat lu dul ne sëriñ Touba noon yi jéem nañ ko ko lor teg nañ ko ko waaye ànd ak loolu lépp teewut mu muñ muñ gu rafet ndax natt yu bari yooye ak muñam gu rafet googu moo waral ba ci niñ ko mujjee yóbbu génne ko yóbbu ko ci tukkeem boobu nga xam ne ca la liggéey liggéeyam bu rëy boobu te ànd ak loolu bi ñu koy jël di ko yóbbu laata muy dem la tàmbalee way xasid ak asiiru gi nga xam ne nam ca delloo ci boroomam ak nam ca sukkandikoo ci moom ak nam ca àndeek sago da xam ne kii liñ koy yóbbu yemut ci muñ ko waaye gërëm sax ko def ndax sëriñ Basiir nee na xasida googu nga xam ne mi ko tàmbalee woon di ko way bi mu nekkee ndar waaye mott li ko itam bi mu nekkee ci gaal gi ne ci biir tukki bi te ci biir tukki boobu ak xasida googu boo koy xool tawxiid ji sëriñ bi làmboo dell gi mu ci yàlla ak muñ gi natt yi ak mbégte gi ci àndal ci ngay xam ne sëriñ bii liñ koy teg yemul ci muñ ko waaye ànd ak gërëm ak neex gu ko natt yi neex ndax ma ngay wax suñu borom ci tarjumaan ja naan ko man daal yow rek laa jàppe buur yow laa jàppe kuy dimbali waaye itam yow laa jàppe ngay sama kilifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it moom laa jàpp muy sama yonent mooy ki nga xam ne it mooy sama wasiila mooy sama sëriñ waaye ne ko itam nag jullit ñëpp laa def ñuy samay àndandoo nga xam ne bi muy dem ci géej gi moom mi gis ne yàlla ak yonent jullit ñi ñoom la ñuy ay wettalam di def leen ñuy ay mbokkam ba faw ñaan yàlla mu dolli xéewal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di tàmbali nag di bind xasida gi ci biir xasida gi ñuy gis xeeti ngërëm yu muy gërëm boroomam waaye itam natt yi ni mu métteeg ni mu diise teewul ànd lépp rek muy wane cant gum ànd ak boroomam moo tax Sëriñ Basiir di wax lii nag mooy wane ne moom natt yi ko yàlla tegoon da caa ànd ak cant ndax kat xasida gi bi mu koy way ci njëlbeenu natt yi la ko way maanaam bi yëf yi tàmbali te ku ne xam na nee mbir yi lu ci ci mbir yi rek day tàmbalee ci tuuti di màgg jëm kaw ba mu des am nattu nee na am nattu moom mooy loo xam ne buy ñëw day rey lool waaye loo gën a muñ muy a woyof mooy li ma ne am nattu kon ah, ki koy muñ saa ko muñee day daal di gis xéewal day daal di gis am noflaay day daal di gis eh, xéewalu yàlla guy sotti ko moom ndax nattu bi bi ñëw rek day rëy lool waaye su muñee day gis mu daal di woyof moo tax sëriñ Basiir ne mbir yépp noonu la mel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne as-sabru inda sadmatil ula maanaam muñ moom fa yëf yi ne teel ci sa kaw rek fa ngay muñee waaye muñ moom laajut nga ne man kat yëf yi dal na ma doon naa ko naqaru sa waaye maa ngi koy jéemuñ déedéet ndax fa fam fa mu dal rek fa la mettee woon si daa ñëw ci yonent bi ko muñal waaye jamono jooju àndut sagoom tax mu tontu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu bu ñagas ginnaaw bi mu demee bañ xamal ne ko yow xanaa xamoo ne kee ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu rëccu daal di ñëwaat naan ko yaa rasulullah man kat muñ naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko as-sabru inda a ula yëf yi fam mettee rek ca njëlbeen ko fa ko war a muñe moo tax sëriñ bi bi natt yi metti ci njëlbeen gi fa la tàmbalee feeñal ak muñam ak wammatoom jëm ci yàlla waaye ànd goo xam ne it ànd na ko lool ak sagoom nga xam ne kon xasida googu muy asiiru ak tarjumaan ji ni mu ko ubbeeg dal gim ci àndal ak sant gim sant nuru na ci lool yonent bi salaatu alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee dem na Taif ba loor yi bari lool mu dem Taif ngir jàpp ne fekk ñu ko dimbali ba mu àggee ñooñu gën a saggan boole kook dof yaag ñu wére di ñaag gone yu ndaw yi ñu koy sànni ay xeer ba keroog ñu nàccal tànkam bi dagg daal la moom yonent bi sa alayhi salaatu wasalaam waaye teewul ba mu génne jaaxle ñu àndal yëpp ca la ñaan ñaanam gu siiwoo yow sunu borom man de maa ngi lay jàmbat néew doole gi ma néew doole ak néew gi nga xam ne néew naa ko kattan ak i pexe waaye nag teewul maa ngi maa ngi ci yow wéeru ci yow de yow yàlla de yàlla boo ma bàyyee koo xam ne damay gat damay gog damay gotti ak toroxal man daal bu fekkee méréwu ma loo ma mën a teg ànd naa ci te gërëm naa ko ndax man sa gërëm rek lay sàkku ne ko li may muslu daal mooy sam mer wàcc ci man waaye li feeg merewoo ma lu ñu ma teg mën naa koo muñ ku ne xam na ne xaal boobu mu tolloon ak nam diis na ne mettee teewul mu yëkkati kaddu yi torox luy dellu ci boroomam weer ko mbiram yépp noonu yi la Cheikhul Khadim def bi nga xamee ne natt yi diis na lool te metti waaye ci njëlbeen gi moo tax Serigne Bassir wax ne Serigne bi tumuranke gi ñu ko tumuranke yóbbu ko ci géej gi la ci moom ndax nee na mbégte tax tax am ci mooy daa mel dañ noppal moom noon yi dañ koo noppal ndax dañ koo yóbbu foo xam ne fa la gën a mën a féexe ngir mën a gën a jaamu boromam waaye ngir mën a liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam teewul mooy nag bi mu fiy nekk kat amutoon yitte ju dul loolu yitte ji mu amoon ci dëkk bi njëkk muy génn it ci jaamu yàlla rek la nekkoon waaye daa fekk ne fañ lay nga gën a mën a féex lu néew néew féex nga gën a dolliku moo leen gënal ñoom ñu baax ñooñu te it loola mooy yokk seeni daraja moo tax jamono ji nga xam ne ñu ngi koy génne fekkoon na ko moom yitteem yëpp jaamu yàlla rek la woon waaye teewul nag yóbbu ñu ko yóbbu tumurankeel ko daa mel da caa gën a sant yàlla ngir dañ koo ma gën a may ak féex ngir mu gën a mën a wéet ak boroomam tabaaraka wa taala ci jaamu ko waaye itam ci wéyal tagg yi nga xam doon na ko tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye doyloo gum doyloo boroomam moom Seexul Xadiim ak wéeru gum wéeru ci moom ba du yaakaar ci kenn dara lu mu ko teg mu nat lu ko teg mu doyloo ko lu mu ko jox mu doyloo ko ba du sàkku ci keneen dara moo tax sëriñ Basiiru nee na sëriñ bi wax na ne man day sàkku dara ci buurub àdduna comme wedd yàlla ci man waaye mu ne wax jooju kat ju diis la waaye nag xam ne nag wóllërante gi mu wóllërante ak yàlla moo ko waral ndax ñoom ñu baax ñi dañoo jàpp ne firi wóllëre sa diggante ak sa boroom moo ko wedd yàlla ñaawale ndax ni yàlla tagge ñi nga xam dañuy matal wóllëre waaye ñi ŋàññi it ñi nga xam ne dañuy firi kóllëre seen diggante ak seen borom loola it nur na ko Abu Hamza al-Khurasani mi nga xam ne da doon dox ba yàlla natt ko mu tàbbi ci teen bi mu tàbbee ci teen bi yàlla dogal xelam di xaw a daj mu naan ay lu may génn ci teen bi teemaa yàlla nattoo ko am ñaari gaay yu fa jaar mu dégg leen ñuy waxtaan kenn ki naan teeñoo sakk teen bii bala fee keneen jaar di bala fee kenn jaar di ci tab bi yéguñ ne am na ko tene bi mu déggee ñuy wax loolu mu xam ne kon xalaat gi xalaat ne tee téemaa wut wallu moo tax yàlla di ko diisalal nattu bi ndax ñu baax ñu it suñu borom doon muñal dara ci wéeru ci kenn ku dul moom ci noonu gaa yooyu daal di wut luñ sakk ba maasale ko daal dem seen yoon waaye mu doyloo borom tabaaraka wa taala lam naroon a woote wàllu ak xettal mu far ko bàyyi suñu boroom dogal ci moom am lu ñëw loo xam ne dafa ñëw rek yor ko ab tànkam ne ko jàppal nee na kàddu gi muy wax ak man nag maa ngi xam lu mu doon ba mu ne maa jàppal sama tànk bi ma jàpp ci tànkam mu génne ma ba mu ma génnee ca la sampu xelam di wey ma xool ko muy lenn ci ndegment yi nee na ma dégg kàddu gu may woo naan ma gis nga niñ la xettalee ci loo xam ne man man na laa sànq ci cànku teef gi nga nekkoon yaa ngi woon ci biiru teem man faa sànq waaye ñu xettalee ne mënoon na laa sànq loolu di wane ne kon doyloo gam doyloo borom tabaaraka wa taala ba sakkuwut xetal ci kenn moo tax yàlla dimbalee ko am lu ñëw wallu ko loolu sëñ Basiru moo ko nett ci meneen baax xadim muy loo xam ne mi ngi ko jëlee ci risalatu alxushayri yi boobu yi nga xam ne sofiyanke bu mag bi moo ko taalif kon loolu di way na cheikhul xadim mii nga xam daal ah, moom la ñuy waxtaane roy na gaa yu baax yooye seen jikko yu tedd yooye ba mujj nag muy exemplaire bi gën a rëy ci boo xam ne sàkku xettal ci kenn ku yàlla moom ni mu ko jëfee nii nga xam ne mosu koo def noonu la ko bindee ci ay waxam yu baree bari ndax bokk na ca la mu wax ne tàllal sama loxo jëmee ko ci kudul yàlla daal loola moom mooy li nga xam ne ñaawal naa ko lool ñaawul naa ko sama bopp ginnaaw boo xamee ne sama loxo yàlla laa koy laa koy tàllal loolu sëñ Basiru neen ci ngi jël ko wax waaye bi mu demee ba ca biir nag muy wax ne su fekkee ne lor dikkal na ma wala ma aajowoo kenn rek laay woo muy sama borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne moom rek moomay xettali waaye di wax ne it yow yàlla daal in aataytani fa shukru loo ma jox rek ma gërëm la waaye wa in manata faridan wa sabru soo ma xañee it ma muñ te gërëm rek boo ma joxee daal ma sant waaye boo ma xañee it ma muñ te gërëm ndax joxe a xañee mennum yow képp nag ci lay bàyyi ko bàyyi ko wul ci keneen loolu kon day wane ne ku gërëm dogalub yàlla waaye ko doy loola del di ko wax ne it aw ma sikk sàkkat ci ne loo ma dugal rek loolaa gën ci man lépp loo ma dugal laa shakka anna kulla ma adxalta nii fiihi fa xayrun liya yaasal mi na ni wa kullu ma axrajta nii minhu fasaaka ala yaduru lépp loo xam ne it génn nga ma ca loolee rek damay xam ne loola lor la woon ci man kon loolu mooy doyab gërëm goo xam ne gërëm na ko natt bu la ci yàlla tegee lay tax ñu wane lay wane ne yow muñ nga natt bi mooy doo jéem a def dara la cay génne Sëriñ Tuubaa ni loolu mooy muñum natt muñ dëgg mooy bu la yàlla tegee natt doo jéem a def du lay génne ca natt ba moo tax moom tubaab yi fu ñu ko mas a wax jugal rek mu dem fu ñu ne mu toog musta laaj fu ma jëlee ak fu ngeen ma jëlee wax na ne sax fi ne fañ ko jëlee mosu koo xam lu dul bi mu nekkee ci gaal ga la am ko dikk ci gaal ga di wax rek naan ko yow ni kii la ñuy génn di ko yóbbu ci réew yi sore loolu rek ci la xamee a xam fu ñu ko jëmee wa lenn loo xam ne dana ko jàmbat wala mu koy yëkkati kaddu di ko woote jëme ci mindeef wala kenn moo tax am na tubaab bu ñëwoon sax jamono yi nekkee luga bi mu nekkee bi biñu biñ koy yóbbu ba mu jegee Louga sëriñ Basiiru net li am na ku ñëw ci nasaraan yi ki ñu yebaloon ñëw ne ko sëñ bi waajal ñun kat jege nañ nasaraan yi sëriñ bi tontu ko tontu gu diis ne ko yàlla du wuute te taliwut ka nga xam ne moo ko waxoon nag moom ñeewante sëriñ bi la jublu woon waaye loolu na xaw a diis si moom lool moom mu jaaxle lool daal di dem ba ak dal am mu dem si waat sëriñ bi wax moom ci wax ju tey ne ko man kat ñëwoon naa di la wax nangam waaye yërmande ak ñëwant laa jublu woon sëriñ bi it wax ak moom ci tey ne ko kat la nga ma waxoon dama laa tontu woon ne la yàlla suñu borom tabaaraka wa taala day dara ump ko lépp xam na ko te wuutewul dara lépp loo xam ne maa nga ca su bëggee ma mucc ca moo ma mu musal lépp lu mu dogal ci man it amul kenn ko ma doon sama diggante loolu ay yemsaskallaahu bi durrun falaa kaashifa la loolu rek laa la jublu woon a xelam daal dal mu door a dellu kon koo xam ne àgg na ci dara ju mel nii nag mooy koy dund dundu gu teey dundu gu neex gu xéewale te mooy aaya bi ma jàngoon léegi man amila saalihan min zakarin aw unsaa wa mu'min falanuhyiyannahu hayaatan tayyiba képp koo xam daal àgg na ci dayob muñ lépp lu ko yàlla teg mooy boroom dund gu teey kon ñu wax ne daal gërëm dogalu yàlla ngëneel la lu ñu sopp ndax moom ñépp seen dara muñ ci àgg waaye nag muñ moom warteef la ci ab jullit kon jaam bi lépp lu ko yàlla teg war na koo muñ waaye itam nag su ma nee weesu muñ àgg ci gërëm loola lañ gën a lati ndax muñ nag am na yiw réew ci nekk ndax innama yuwaffa saabirun ajrahum bi xayri xisaab ñi nga xam dañuy muñ leen yàlla teg bu ëllëgee seenu yiw suñu borom tabaaraka wa taala leen koy matalal sëkk du leen ci wàññil dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne it jaam bi du muñ lu ko yàlla teg lu dul ne lool day nekk aw yiw ci moom nga xam ne bu ko dara jotee bu dee aw ay mu muñ ko yàlla defal ko aw yiw bu dee xéewal gu ko jot mu sant it yàlla defal ko loolu muy aw yiw kon jaam bi léppam yiw la su ko defee nag ñu tënk jeexale ci yi nga xam ne nag képp kuy muñ ab dogal wala ngay gërëm ab dogal yii moom dàqonte nag loolu ab dogal daal ki koy muñ du bàyyee sukkandiku ci yàlla mukk waaye itam du mer mukk ci li yàlla jox lu ko yàlla cër rek mu sant ca waaye itam du jàq mukk ci lu ko raw lépp lu mu doon wuti ñàkk koy day xam ne yàlla ko dogal ci moom waaye bu ko faatu dikkaloon ci kenn ko jege it du yuuxu mukk wala muy tudd ay baat yoo xam ne baati yi ñuy wax di faral di wax ne diw ñàkk naa ko fu ma koy jëleet yooyu yëpp bokkut ci muñ ab dogal waaye bokkut ci gërëm dogal bi yàlla waaye itam nit ki it bokkut ci liy wane ne ku gërëm yàlla la kuy rafet lu kuy béggee li ko yàlla teg mooy ah, ñaan yàlla rey ko wala yàlla faat ko ci ginnaaw boo am nattu am nattu dal na ko léeg nit di mébét génn àdduna ngeen nattu yi ko dal waaye itam tiit ak jàq ak ñàkk gërëm la yàlla wërsëgale yooyu yëpp bokkut ci yi nga xam ne jaam bi su ko dee def day bokk ci li nga xam ne boo ko jaam bi di def day wane ne àggul ci muñ ab dogal rawati nag muy àgg ci di ko gërëm meññat yi nga xam ne nag gërëm dogal yàlla dana ko jural nit ki mooy ni Cheikhul Khadim waxee ne képp koo xam ne daal gisul ci mbir yi ku dul yàlla suñu borom tabaraka wa taala yàlla féete ko fépp moo koy wuyu ci lépp mooy li mu waxoon mag ne leen suñu borom tabaraka wa taala di képp ku ne ko ana nga mën la maa luy ana mooy fu la digal nekk fa su luy maa bokk na nga xam daana ko xam waaye wax na it ci masaalikul jinaan ne suñ borom su bëggee ab jaam faaw mu teg comme natt su jaam ba muñee nag yàlla daal koy gërëm te ngërëmul yàlla ku ne xam ne ne moo gën a rëy sax aljanna wa ridwanum min allahi akbar wax na it ahlul balaa laysa lahum misaan ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg natt yi tey muñ ko muñ ko rafet ëllëg amuñ balance ñuy teg di pees seeni jëf dañuy jóor seeni jëf mu bari lool rek ngir wane ne ñoom daal seeni xéewal ëllëg kenn xamul na mu day waaye itam muñ dogal bi dana tax jaam bu ko yàlla tegee dara mu ko lam koy jural ci ay bokk na ca mooy day mujj lu ko yàlla tegat day mujj woyof ci moom tooy waaye itam duutu jàmbat dara waaye bokk na ci lim koy jural mooy ku dëgër lay doon ci saa bu ay tiitaangi amatee dañuy gis ne ko ko mën a teeru teeru ba gën a rafet lay doon te du ca tiit du ci ànd ak njàqare mukk waaye jàmb it saa boo xamee ne kuy muñub dogal la loolu da koy jural lépp lu mu duggati di ca wut résultat résultat bi da koy yomb te mooy ni mu gisee Seexul Xadim liggéey bi mu boromam ni mu diiseeg ni ak li ko ci yàlla fayee suñu borom tabaaraka wa taala ba tey ji xéewalam yi di sottiku ba mu wax ne tey ju day gàcceel dembam tey jii day gàcceel dembam loolu li ko waral mooy muñ gu rafet ga nga xam ne muñoon na ko nattu yi sëriñ bi it bay di mu ubbee woon ci laay jeexale mooy daa wax ne nabbahtukum maan ala kaddin bada lii qabla an araari dan mu abada maanaam daal ngërëm lii ma yàlla gërëm tey ba xéewal yi di sottiku jàmm ji bari lool li ko yàlla fayee waxtu ne mu koy yokk loolu nañ xam ne it dara mayu ko ko lu dul muñ goo xam dana muñal na ko muñ na ko natt yoo xam ne yu diis la yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala tegoon na ko mu muñ ko muñ ko rafet kon ci jeexal dañuy wax ne tema ngi nii boo xam ne bu am solo la ndax liñ ci waxtaane mooy muñ ak gërëm dogali suñu borom tabaaraka wa ko yi waaye ginnaaw muñ xamee ne jàmbi mun mënut mucc am nattu amul benn jaam boo xam ne mën na mucc ci nattu wala dogal bu yàlla wàcc ci kawam su boobaa nag kon ana fu ñuy rawante mooy muñ gu rafet guñ koy muñ ak gërëm guñ koy gërëm te jaam bi nag boo xamee ne yàlla teg na ko nattu muñ ko te gërëm ko xéewal ko suñu borom tabaaraka wa taala di faye aaya bi ma ubbee woon ulaayka alayhim salawaatu min rabbihim wa wa ulaayka hum muhtadun te mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon jaam bi lépp lu ko yàlla teg su muñee dellu ci boromam suñ borom wuutale ko lu gën loolu moo tax kon Cheikhul Khadim lii ko yàlla faye tey ba tax muy sant ci bis bi nga xam ne ci la nattu yi tegewoon ci moom teñ xam ne saa bu màggal gi dikkee xéewal yi ko yàllay faye day yaatu ba ñooñ aljanna sax dañuy yëg ne xéewal yi bisu màggal gi agsi na kon nag rawate nañu àdduna ñi nga xam ne moom xeeti xéewal gi ci fànn gu ne lañ koy gisee loolu lépp na kon suñ ko waxtaanee te bàyyi ko xel danañ xam ne nag liñ ci mën a jële rek mooy ñu góorgóorluwaat baax ci muñ muñ lépp lu ñu yàlla teg ni ma leerale woon muñ nag te mooy bu la ko yàlla tegee nga fexe ba bul jàmbat bul ñaxtu bëgg ci sa xol ne nag yàlla na ko yàlla teggi wala nga yéene ko wala nga mébét ko loola moom jaam bi amaana dara jaam du àgg ci mu ñàkk mu ñàkk ko def ndax loolu mooy muñ waaye su góorgóorlu woon ba deful loola day àgg ci ngërëm li ñuy wax arrida day àgg ci daraja li ñuy wax arrida te mooy gërëm te gërëm dogal bi yàlla nag moo gën a rëy muñ gi waaye lu ci nekk ci ñaar rek jaam bi war naa fexe ba su munta muñ dogal it su mënta gërëm dogal yi na fexe ba di ko muñ muñ gi nag mooy daraja ji féete suuf waaye gërëm gi mooy daraja ji féete kaw Cheikhul Khadim nag joxe na exemple ci ñaar yépp ci natt yiñ ko teg ak muñ gu rafet gi mu ko muñ ba yàlla gërëm ko jox ko li mu ko jox ci ay xéewal kon yàlla na ko yàlla fayal te taas na ci barkeem defal nu itam ñuy bokk ci ñi nga xam danañ jéem suñ kem kattan ngir jeexitalu roy ci daraja yooye nga xam ne doon na ca góorgóorlu ba yàlla gërëm ko ndax màggal gi weesu lu du fàttaliku jëfam yu rëy yooye ak sant ci yàlla bu ñuy sant yàlla nag ci xéewal yi mu ko jox war nañuy fàttali ko wala jikkoom yooyee ngir di ca jéem a roy ndax jéem a roy lu baax dana tax boo ëgg ca ñu baax ñi it da nga jiitu ña nga xam ne ñoo di say kon ñi ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu defal ak dégg ak topp waxtaan wi lépp lu ci jub ñi ngi koy sant yàlla di ci sant sëriñ bi lépp loo xam ne it xëy na njuumte la ci wala melut nañ ko bëggee xëy na sunu matadi rek lay lay doon ñun waaye liñ ci yéenoon mooy lu jub lu mat sëkk yal na nu yàlla defal tawfiq defal ñu ngërëmul sëriñ bi def ñu dëgg-dëgg taalibe Cheikhul Khadim ñu nangul seen taalibe